ci seen beneen vidéo bu bees di nuyu ñi ñuy topp ñëpp tey wax képp ku ñuy topp na ngay partager vidéo yi pour mu gën a law parce que dañuy wax ni du euh, adduaa u ida amma anfa maanaam lépp lu nit ki di def ci lu baax lu mu gën a yaatu rek moo gën te mooy gën a jariñe loolu mooy tax di leen ko partager di ko yaatal nit ñi mën cee jariñu bu baax voilà donc sëñ bi tey ñu ñëw si li nga xamante nit nit ak jafe-jafeem yow tey loo si tënk waaw di nuyu ñu ñuy topp ñëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di ñaanal ku ci ne fa mu nekk yàlla na ko fa suñu borom defal xéewal ak jàmm ju mat sëkk te soril ko lépp lu muy ragal di wax ngeen partager vidéo yi muy gën a yaatu parce que addu'a addu'a ida amma anfa dañuy wax ne ñaan bu gënee matale mu gën a jariñ muy lu baax rek lu mën a doon lu mu gën a yaatu rek moo gën waaw nga laaj-laaj bu am solo muy jafe-jafe àdduna maanaam adduna suñu borom nit ki nit ki suñu borom def koo mooñaale ak i jafe-jafe man nit ki nit mi ngi ci biir jafe-jafe ci gàttal man nit ki du ko génn moo tax alquran ni laqad xalaqna al insana fii kabadin man waxul laqad xalaqna al insana ala kabad dani fii kabad man ci njàqare la ko bind ba tax ne nit ki du jug ci njàqare man nit mënoo teqale ko njàqare tey da kontaan suba nga bég tey nga mer suba nga reetaan tey mu neex suba mu naqari tey nga am suba doo am maanaam lii la yàlla bindee adduna pour mu mën a neex parce que adduna bu continué woon rek di neex bu yàggee yow nit ki doomu aadama ak ni la yàlla bindee da soxla lu naqari bu continuer di naqari da soxla lu neex moo tax suñu borom yamale ko ba tey mu neex suba mu naqari waaye xamal ne lu neex lu ne heure bu la dikkee jàppal ne du continuer lu naqare lu ne it du continuer moo tax waykat ba daan wax ne wala tajza li xaadis layaali fa ma li xawaadisi dunia baqa lu la mën a arrivé bul tiit ta xam ne euh, lu metti metti rek du yàgg day daal di day daal di dem noonu it la suñu borom bañee nit koo xam ne danga nekk ci xéewal ba fàtte nit ki boo nekkee ci xéewal it bul topp neexaay bi parce que neexaay boobu boo ko toppee mooy tax bula la bu la bu la bu la boo ko ñàkkee rek man laa mën nga fa saalit wala leneen di la dikkal moo tax nit ki lu mën a xew rek nanga muñ te dëgër comme ni ko waykat bi waxee wa kun rajulan ala al ahwali jaldan wa siimatuka samaha wal wafa na nga mbir yi lu mu tiis tiis rek na ngay dal yaa ngi dégg te xam ne loolu mooy sa njiglaay yow damay wax ne nit ki ka nit ki fi mu ne lu bari nit ñi dañ ciy juum Euh, nit ki pour ay mbiram baax dëgg jafe-jafe mun moo jiitu lu neex moo tax alquran ne fa inna ma al usri yusra maanaam inna ma al usri yusra jiit jiital usru ci yusru maanaam lu naqari la jiital ci lu neex maanaam balaa neex nga jariñoo ko faaw mu naqari naqar googu daf lay wan ci yoon waaye yow it na nga fexe ba heure bu méttee rek. heure boo daanoo na nga jugaat waaye nag jug googa na nga ci jàngatee moom na ko jëlee ay leçon bu mu nekk loo xam ne rek lu metti la nii rek nga dund ko noonu noonu mais na nekk loo xam ne ay leçon nga ciy jëlee parce que nit ki dafa am ñett metti yoo teg sa bopp loolu moom yaa ci mën a génne sa bopp ak yi nga xam ne nit ñi ñoo la koy teg yooyu it yaay fexe it yow ba xam nooy jaar ba génn ci sa bopp ak yoo xam ne nag suñ borom moo la koy teg yi nga xam ne suñ borom moo la koy teg yooyu mooy nattu loolu benn jàmm mënu cee mucc loolu nit du ci mucc nit ki li fekk yaa ngi gëm yàlla surtout ak lu gëm ga nu mu toll rek jàppal ni suñ borom dina la nat toll toll noonu pour bëgg laa fàttali est ce que gëm gaa ngi fi wala déet kon nag nit ki lu ko mën a arrivé ci lu mel noonu aw yiw la loola suñ borom teg lu ne yiw la benn muy bàkkaar boo def mu teg la nattu pour jéggal la bàkkaar boobu wala muy mu teg la ko ngir xéewal yoo xam ne dala ko war a jox muy ay médaille pour mu takkal ko nag faaw nga muñ loolu kon nit ki àdduna faaw ay jafe di am faaw muy am mënul ñàkk faaw tey mu neex suba mu naqari mais lu si ñëw rek yow na nga ko dundeek noonu aku gëm yàlla te xam ne yàlla dafay changé waat mbir yi après ànd ko gëm-gëm te bañ a saalit maanaam adduna nit du saalit bu wur metti metti metti metti ba nga découragé ci adduna non non yàlla bëggut loolu yërmande yàlla kenn du ci naagu wala taqanatu min rahmatillah nit ki moo xam ak moo xam ci wàllu bàkkaar la man nit ki loo mën a def ci lu bàkkaar ak mën a toll nga jàpp ne suñu borom du la jéggal tey lu mu métti métti ci adduna ak jafe-jafe lu mu tegaloo ak lu mu bari bari bul jàpp ne it suñu borom daf laa fàtte wala say mbir baaxut non non non waaye nanga na nga muñ rek te jàngate ci ay mbir te xam ne suñu borom dina ko jeexal moo tax may faral di wax ne nit ki ci wàllu ñaan fi mu ne nit ki kaaraange dëgg kaaraange dëgg bu ko bu ko bu ko amee bu ko amee faaw ay tolof tolof topp fi mu ne kaaraange dëgg nit ki bu ko amee faw ay tolof tolof topp te lu loolu nag ñu bari dañ koy réere dañ koy dañ koy umpale ne nit ki boo ko joxoon la koy aar fi mu ne ba mu jëfandikoo ko bu dee loola dëgg la kaaraange ga ci dëgg faaw ay jafe-jafe dina ci am début bi faa mu gis ay jafe-jafe faa mu gis ak taxaw faa mu gis ay kii parce que loolu moo koy garante loolu moo koy dëgëral ab tabax boo ko peenturoon ba mu rafet kër boo ko defoon karaw ba mu rafet boo bëggoon a tegaat yeneen karo faaw nga dindi yu njëkk ya peinture ba nga bëgg a sensibiliser peinture ba faaw nga ñëw xolli ko doog a tegaat beneen ci kawam moo tax loolu faaw nit ki xam ko di ko di ko di ko doxee euh, ba mooy tax mu gën a mën a jariñu ci li muy wut ci adduna te bañ a ragal it maanaam ñàkk man nit ki du ragal ñàkk ñàkk kenn du ko ragal moo tax waaye ba daanu wax ne fa kayfa taxaafu alfaqra wallahu raziqu faqad razaqa tayra walxuuta fi lbaxri man naka ngay ragale ñàkk yow boo demee ba toog ba xalaat ne suñu borom mooy fekk jën wi ci biirum ndox di ko war a sëgale yow doomu aadama bi suñu borom tegal joxlam xel kon war a too ragal xamal ni lépp loo ëmmul rek yow la waaye nag li ci jiitu mooy faaw nga amu fit fit wi mooy bu ragal fitu waxul la it fit woo xam ne tegoo ko ci lu leer maanaam fit wi day nekk fit da ngay am fit maanaam jàppal ni yàllay maye yàllay xañe kenn mënu laa may kenn mënu laa xañ ku dul yàlla lii boo ko amee gëm-gëm kon doo faale dara looy def bu dee la ngay def lu leer la dara lu ñuy tere nekku ca loolu boo ko defee rek suñ borom mën na laa mën na laa mën na laa dimbale ba ba ba li ngay bëgg suñ borom jox la ko euh, waaw mooy nit ki daal kon nay moytu ragal ñàkk ba tey di doylu lu la suñ borom jox nga xam ne jamono ji loolu la la loolu la la jox nga yokk sa góor góorlu ak say xalaat te xam ne doylu ci la nit ñi rawante rawantewuñ ca dara lu dut doylu nit ki nga xam ne dafa am fukki dërëmam doyloo ko moo tane ki am junni te doyloo wut ki am junni te doyloo wut fu mu nekk de rëppi rëppi te junni ba sax mën na koo far réer moo tax ñu ne la ida ma kunta daa qalbin xanooin fa anta wa maliku dunya sawaa'u nit ki boo amee xol doylu yàgg buur a yam buur lépp lu mu soxla ci wàllu lu soxla pour jënd ko pour wuut ko ci loo xam ne alal la koy maye da koy yomb lool nit ki boo doyloo saw ñaar fukk mu doy nga jën ca la yem ak sa doole yaag buur a amoo jeneen yitte amoo bi jeneen soxla kon nit ku ne daal lu ko mën a arrivé ci àdduna na ko muñ te xam ne day jeex te xam ne nit ñi ci muñ lañ rawantee ak ci doylu lu leen mën a dikkal ci coono ñu delloo ko ci seen borom. Euh, sëñ bi ma bëggoon la laaj euh, euh, Sonko dafa def plainte ki nga xam te mooy Adji saar ak Sidi Ahmed mbay parce que dañ ko def li nga xamante ni moom na jàpp na ni loolu tegul ci yoon mooy maanaam. Hmm. ne yor nañ ay vidéo yor nañ ay affaire am di ko sosal daal mais plainte boobu ba léegi amul suite. Hmm. Sonko wax na ko yow ban jàngat nga si am. jàngat bi de mooy li doon wax ci vidéo bee rek nit ki boo koy xeex. te bëggoo li muy wut mu am ko yow fépp foo mën a jaar ba baare ay mbiram danga koy def parce que yow woo ci moom dëgg yow noo ko suulee rek nga soxla moo tax yow dëgg da lay réer fu ne même moom bu buñ ko tooñoon ba mu ñëw naan dañ maa tooñ sax da ngay gis ne yow am noonu lay lay nekk ci sa kanam doo ko may dëgg mukk lépp lu koy defaral doo ci dox lu ko yàqal rek ngay sawar nañ ko tuumaal nañ ko sosal nañ ko plainte yow ba nga woolu ko waaye moom heure bu déposé plainte yow da nga koy xeex doo ko nangoo parce que yow atteetoo dëgg toggalootoo fa dëgg la nga fa toogal mooy lan personnel mooy tax yow lu mu indi ci dëgg rek yow doo ko gis. doo ko gis la nga gis rek mooy loo fexe ba xeex ko te loolu nag musiba la cim réew. Mhm. musiba bu am réew bu demee ba àttee kat taxaw taxawati di àtte moom lim liy dëgg moom réew moom waxuma la mais fa mu jëm moom euh, wax dëgg yàlla benn. kenn rafetlu wu ko dal ci gàttal. Mhm. kenn rafetlu wu ko. Mhm. tey nit ki nag buy jug di politique ak di xeexal am réew. yow wax dëgg yàlla bu dee àtteekan nga li nga war a def mooy xaar dëgg mu ñëw nga àtte ko. Oh. te bañ a xaar ay intérêt yuy ñëw pour nga àtte ko. mais na nga gisee loolu Sonko ak euh, ñaari xale yooyu noonu ñuy portante plainte Sonko di porte ñoom Seydi Ahmed Mbaye ñoom Adji Sarr ñoom Adji Sarr tamit naan dañ koy porte plainte Sonko niveau fu mu toll est-ce que war na mën a egg foofu ak ñooñu noonu. waaw loolu du dara xam nga niveau niveau bi nga xam ne moom la Adji Sarr niveau Adji Sarr moom par loolu kenn du leen tëkk tëkkale sax mi ngi waaw loolu loolu du combat mais fi ñoom fi ñu jël Adji saar ak ñi ko ngemm ba teg fa yëg fi ya ba ba yóbbu fa mbir yi ba ah. mbir yi law adduna mhm. ba sosal Sonko foofoo tax Sonko pëlante wut Adji Sarr mais wax yi wax yi ak sos waaw kay pour wane it ne ñoom ñi ngi koy sosal sañ na moom it nit la koo xam ne ci réew mi la bokk mhm. sañ na pelante comme ñëpp mhm. léegi bu ñu nangoo planifier rek war nañoo nangu planifier heure bu ñu ko bañee rek mooy dëgg amatu fa mais luñ ko xeexee la ñuy war.